de cocktail, une explosion de saveurs dans une même et seule bouteille fruits yep, yëpp ñu Senegal, ko Sénégal si anam yu sell te naturel buy bi nag day wàññi tooy baax si yaram tayit yi leen sawarloo jus bi sàppi nag oh. oh dina yok sen kattan bolé si vitamine rek la ñi bëgg soo naturel nak vito sont accident pour fête bu monti doon te baax lool si yaxu gune ak mag nac. nak nek si emballage civilisé te ak jus vito da am choix te ñu déféré ko fi ci Sénégal si anam yu naturel te sel disponible partout au Sénégal vito jus fabriqué par Groupe Cefas à Dakar à la cité cœur Damel à côté de la mosquée téléphone 77 241 06 06 vito jus le jus fait maison Yeah. Uh huh. Yeah. Nyango kihe, nyango isaga, nene dade, dinyo diwaga, anga kikens, koko indaya, nyanko kife, pa. Papa mlacha na nyanko, yo kana kiso nyanko, yo bo hamon nyanko, do lake kamwe nyanko. Papa mlacha na nyanko, yo ñi ko toog ñi ko mag lay kekkal too ñàngu bëggu jàng booy rangu soot ñi nee nañ ci bi damaa bëgg nag tey. Hmm. lépp luy naaw. te hmm. mu dagan a lekk. dégg nga li luy dox am ñeenti tànk ñaari tànk te mu dagan a lekk. Hmm. tey lu waay laaj ma jox ko tey waay laaj ci dugub yàlla ma def ma pare sax Macky Sall def lu mu def tey dara nga yaa ko yelloo. Ah. xaar mbir mi rax ma. ñaari junni yu ma daal di joxoon. sama puus dënn bi laa ko defoon te gis ma. waaw te fii la. def ma déplacement Sénégal. lépp fii laa ko defe léegi mais yéen léegi ñaari junni génn fii. nokk leen a ñaari junni. baax na tëddee waat xale. waaw waaw leen ñaari junni laa. ñaari junni yi yow xam nga la. man du ma nekk ci géew dara réer fa. ñu naan ba mu fay réer. eba fa yoon ñaata yaa ngi nii. ah sama nit nga. waaw ayca ayca ayca ayca. Samba ñàkk sa yaay jël ma. Waly Seck yaay doomu ndeyu Arma Ndiaye waaye yaay suñu doomu ndey ñaari kàlla kenn naw loowu la woon sama xale bi defar la ba nga jekk boo ñëwee dama koy wax doo giwal waaye jukkee giwal giwal jël suñu waaw bu nga jël xew mu moom ko waaw ñaan ko mi uh-huh. da nga koo xeeb waaye ku ko xeeb xeeb ma ko moo tax ma ne waaw ana ñu ne woon fi am ba mu amee lu ñu wax ñii la ñu ñii la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 nous deux étudiants. Nous avons l'une des meilleures salles de TP au Sénégal.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

Yine bu bir olası war def tey tey kay non tey kay non yëpp nii la war def. yow xam ne moom moo dara. li nga def nii. démb ci guddi gi ñu mujjee. waaw fi bu la neexee. yoral drapeau bu weex bi téye ko solo. dëgg la nga képp ki góor. dëgg la nga sa baay bii. wallaay. sigil nga sa bàjjan. wallaay sigil nga man du kuréel nga xam ne a la bàyyee. dëgg la sigil ñi nga xam ne ñoo ñu woon. waaw dana taxaw. waaw waaw ah, awa mi taxaw. waaw sa ah. jigéen la dëgg la ah, kii kii. man la may premier njëkk la may premier njëkk. dëgg waaw. waaw. kay sa sa waa kay bés bés kay kese yaa bés bu lëy la. Mm-hmm. waaw waaw. ah. waaw ñëpp. ah waaw. si kaw yaay xool. Ah. mu rawaat wéru ma. waaw dëgg la waaw ah waaw ah. ah dëgg la. naka ah. ku wélul. naka ku wélul. naka ku wélul soo neex nga jël ku wélul jox ko. waaw ñoom ku wél. waaw ah waaye affaire dem kay wan fu mu nekk. dëgg la maa xam bu dakk nag crypté. waaw dëgg la. <laughs> xanaa xam na xam naa. waaw ah waxtaanu biir néeg la. waaw ndax laa jëloon jox ko fure mu jokkoo muy jaay affaire leer. waaw ñoom jaay affaire am na si affaire affaire ah. Eh, waaw mais loolu jàll na comme ñëw na ci xew ma ah. ko daal jàll na. waaw waaw mu jël ko may ko kii. waaw maanaam maanaam fure njëkk bi. Ah. ba seizième njëkk sax mu laa ko jox. Ah. dëgg la. ñaanku takk na jabar ñaanku takk na jabar yow la may njëkk bu nga amee doom yow la may tuddee waaw waaw ñu may la waaye dama bëgg. waaw nga ñëw ma si gàmm hip hop. waaw. hip hop léegi nag loolu loolu. loolu dama ko fi xaar parce que dama dama war a fatuwaat. xam xam xam Jula dara. waaw non da ñuy dàq. waaw da dem leen dem leen ah. heure bi du heure bi la dugg. comme mënuloo dem. nan dem ak sunu hip hop bi rek. ou ah ou ah ou comme ça tout naan. mais ou comme ça. loolu baat loolu c'est la la waxoon. waaw waaw mi nit la wala saako ceeb. xam nga épice la la la waxoon. naay. xanaa xañ na. naay la la la waxoon. kii. damay to eh eh. ah kenn. yow yow yow. kii xaar day génn. génn génn.

그냥 구하셨다. 헝발라 길어라. 야, 사람을 나한테. 사람을 그려. 어, 한번 들어 빨리. Yeah. Uh-huh. Yeah. Nyanko ni khe, nyanko ni saga, nene dade, dinyo di waga, anda kiken,